loolu lépp dañu daal di bokk suñu ponk suñu ponk itam bok na par rapport ak ki nga xamne ne mu ñaga Ndiaga mi ngi daal alerter euh, par rapport ak président Macky Sall li nga xam itam bëgg ko daal di battre campagne jëmale ci ki nga xamne ne mu di justement Euh, Amadou Ba ki nga xam ne que mu di euh, Bassirou Diomaye Faye na lâche pas ki nga xam ne que mu di Amadou Ba moom itam ba tey mu koy daal di topp euh, si kanam li nga xam ne que mu di justement mm, déclaration de patrimoine man ñu kon ki nga xam ne que mu di justement Idriss wala kon ki nga xam ne que mu di justement mm, Bassirou Diomaye Faye mi ngi ñaax wala ko mi ngi woo ki na xam ne que mu di Amadou Ba mu daal di wax exactement alalam ana si naka la daal di toll ki nga xam ne que mu di Bassirou Diomaye dina ko daal def moom fii ba li nga xam ne que dimanche la ñu daal di dem si li nga xam nekk moo bañ s'il gi daal di jëm si li nga xam nekk élection présidentielle ci 2024 donc les do su ne sans plus tarder arfan ak lu daal di ñël si li nga xam nekk justement euh, décret bi nga xamni ne itam moom ñu di jëloon abrogé li nga xam ne que moo wala kon euh, tas li nga xam ne que moo le parti Pastef une très bonne nouvelle ñu ne dinañ ko daal di abrogé lu ñu mel daal di euh, wat li nga xam ne que moo le parti Pastef à Ousmane Sonko exactement alors afam par rapport ak li nga xam ne que moo di euh, le parti passif Seynouwat nous ñu bëri jàpp tout ça pour ça ak lépp yoo xam ne on a na fi Antoine Félix Diome génn def ay révélation si parti boo xam tam itam daa nekk force terroriste force spéciale et tant d'autres et tant d'autres <laughs> xam nga sëñ Fallou euh, dama daf may reetaan loo tu sais pourquoi euh, sànq qu'il ngi ko doon wax avec l'ampleur que donc l'effet faits yi ngay gis Antoine Félix Diom il il était dans tous ses états hein. ba muy balaa muy tas le parti Pastef amul lu mu déclaré wul amul lu mu yekkalul donc parti bobu force force occulte des commandos euh, Pastef je crois il y a un journal qui l'a titré aujourd'hui les commandos de Pastef euh, les terroristes hein, donc colo euh, ak ben entreprise terroriste mota ñu tas parti bobu parce que c'est les motifs hein motifs yoyu lañuy euh, euh, donc pour mën tasse tas parti pasteur pasteur aujourd'hui nous voté loi d'amnésie dadi <laughs> effacer tous les faits yo xamantene amono fi ci bobu maman bobu aussi et aussi ñu ñu giño ni que ñom ñoo def bobu hmm. ñu effacer ces faits là maintenant suñ ko effacer c'est forcé que réhabiliter le parti. <laughs> dañ koy wat sur la chaîne politique. le parti faut foog ñu andiwaat ko ci la chaîne politique. Mm. parce que vous faites da nga ne da nga amnistier bon voilà parce que dans amnistier nit. ñun lu ñu xam bokk ci amnistie on amnésie les faits. Mm. maintenant bu faites da nga amnistier les faits Sëñ Fallou. Mm. moi maanaam il faut nga wat parti sur ci l'échiquier politique. da nga koy wat ci politique bi. boo ko un autre président va venir il va abroger le décret il va le faire. Macky Sall c'est ce qu'il a compris dama lay wax pour nga ce qui ce qui s'est passé ça à dire que dañ ko xamal ni que euh, ñakul sondage amna journalistes yi xam ce qui se passe et les autres euh, acteurs euh, ñu nak ci politique bi xam ce qui se passe actuellement xam nañu Bassirou Diomaye Faye il fait parmi les candidats favoris pour remporter ces élections et ce Bassir Diomaye là est un membre de l'ex-PASTEF. Imaginez, il est aujourd'hui président de la République, mais des réhabiliter son parti. Il va abroger ce décret-là. Force. Non, mais c'est évident. Un autre président qui va vous dire, il va abroger cette loi-là. Parce que s'il y a une amnistie, et que le parti là n'ait pas été réhabilité, mais le président Bougne, la loi d'amnistie Bobo Moko, moo koy ne comme amnistie na bay génnee ay nit kasso donc le parti diou da wara ko wat yeufam motam yëfam. Hmm. moo Macky Sall c'est qui là c'est ce qu'il a compris. Hmm. moo tax mu ngi ci logique bi hein logique loi bi waxuma logique comme mais logique loi bi. Hmm. <laughs> mais fo nga xam lolo mu ci logique loi bi loi bu ñu voté loi d'amnistie bobu ci logique comme la nek loolu laa la def bu bu andi waatee parti bi bu c'est-à-dire que bu delloo waatee parti Pastef mm. dafay dafay dafay waroo ak loi bi lu mu wax mm. parce que bu fekkee loi d'amnistie la ñu ne mooy naanaam effacer daal di effacer les faits yu ci yu xewoon ci diggante boobu mm. mais fokk mu andi waat parti bi parce que le parti a subi les dégâts collatéraux de ces faits là le parti Pastef boo gisee ñu ñu ñu ñu tas ko mooy maanaam à base de ces faits là maintenant tey ils ont effacé les faits maintenant on effacer les faits yi tax ñu ce parti forcément da ngay abrogé da ngay génnewaate décret buy abrogé décret bi nga tas parti c'est évident parce que da nga ne da nga faits yi le parti là a été dessous à base de ces faits <laughs> est-ce que comprendre comprenez M. Fallou aujourd'hui le président de la République en réalité il n'a pas le choix il n'a pas le choix il faut que mu génne beneen décret mu abroger le décret qui a qui a porté à la dissolution du parti Pasteur. il n'a pas le choix il faut qu'il le fasse beaucoup de defulee it keneen mooy à sa place dans ce cas mom, <laughs> voilà. Hmm. dina am lu ko koy parce que tas nga parti keneen ñëw euh, andiwaat ko réhabilité réhabiliter watko. dans ce cas dina am lu ko hmm. et aussi bu fekkee eh, eh, un membre de ex Pastef boobu moo falu mën na mën na am tamit defante mooy maanaam fayantoo. tas parti oui tas parti après oui parce que ñoom lu ñuy andam yi ñuy defee politique non la kenn souhaité ko man parce que mais man man sax je ne suis pas d'accord mm. fayantoo. Mm. mais xamoo lu nekk ci bopp xamoo lu nekk ci bopp Arfan nekkul forcément looloo nekk ci bopp fallu mm lu nekk ci bop Ousmane Sonko nekul forcément qui ci bop Basir Diomaye Fay Sonko en man duma fayanto ak wala Basir Diomaye Fay waxuma ni que lay def comme nañu bañ parti mom tamit durant son mandat de 5 ans na tamit essayer d'entasser de de coller benn motif euh, à la paire Motasco, vu que fii dañ leen coller motif. Mm, mais la. enfin ce que vu que c'est dañ leen coller motif sans sommation. ñu euh, parti bien sûr dañ leen coller motif dego luñu luñu luñu tek sen ay entreprise terroriste terroristes, ak ay entreprise terroriste ay quatre molotov appel à l'insurrection à longueur de journée. Mm. lenen ak lenen la lay. gis nga mom bu benen président bu fallu mën na ñëw jël les mêmes motifs kole ko parce que bu ñu ni que la loi d'amnistie la benen président bu ñëwee mënu ko euh, euh, abroger mën na ko abroger ah ba ba les auteurs de de ces crimes là maintenant imaginez aujourd'hui benen président de la république ñëw juge ni que la loi d'amnistie n'a pas sa raison d'être mu juge ni que mom da koy tas. Hmm. oui manam day day day faxas loi boobu. Hmm mais bu ko fa xasee ba pare ana lan moo siy top des poursuites. voilà des poursuites ouvrir benn commission d'enquête indépendante D'aller situer les responsabilités maintenant vous situer les responsabilités ba pareil nous situer ni que ni ni disons ni ko ay nervi amna na ñuy siège sangam la départ. voilà voilà <laughs> imaginez qu'est-ce que ça va faire quel tournant ça va faire ils sont obligés aussi de tasser parti à pair parce que dañu gis ni que vieux yooyu ñi occasionné ay ray xalé yi amana amna ñi né ne seen pick-up yu fall ci siège bobu la ñuy déparé président bu ou ubbi enquête tamit mu loolu firnde ni que nervieux yooyu ci APR lañu bok mëna mën coller euh, étiquette APR mm. tas ko comme ñom APR lu ñuy tasee passé. Mm. après sénégalais dañuy gis ni que peut-être fayanto alors que du fayanto fofu lay waxee est-ce que président de la République aujourd'hui mm. comprendre lolu Mota, muy commencer di jël les avances mm. jël avance moi maanaam euh, abroger décret bobu dadi andi que passer pour baña une fois wa Pastef buñu yégué yéegee président sen ben membre wala Bassirou Diomaye Faye wala Habib voilà wala keneen mom mm. tamit mu dit di euh, euh, faxas loi dit que ba paré engager des poursuites buñ démé ci poursuite bañu japp ni que réellement effectivement nervieux yu euh, ils appartiennent à APR dinañ mën nañu leen coller étiquette boobu tas aussi APR tas APR té ça sera un éternel recommencement et aussi euh, euh, la le jeu du yo-yo va commencer le jeu du yo-yo manam ya ma defone ni voilà ma defaat li dans ce cas sénégalais yi que ñoy dess pour juger sénégalais qu'est-ce kese ñooy des pour juger ne oui, fayantola ñi ñii ne non c'est c'est c'est comment dire c'est normal parce que nervi ñu leen bal nervi ñoo voilà ça sera une chose boo xamante ne franchement sin fàllu kenn mm. souhaité wu mu am man mi souhaité mo mo am. Mm. mais toutefois mu amee dama koy comprendre ci sens bobu ci sens bobu la koy comprendre. alors euh, euh, c'est clair exactement donc ñi ngi dem vers li nga xam nekk moo la restitution justement euh, du parti euh, Pastef ginaaw ba ko daal li nga xam nekk moo